xaalis rek nekk sama entraînement di xaar promoteur yi. combat bi taxaw. non taxawagul nag. ñàkkul ñun lay proposé. waaw ñoo may proposé Tapha Tine may proposé ay ku su ni Bombardier Gris Bordeaux waaye ku ma yàlla boolal rek. li tax nangu woo bëre ñoom. ñoom ñoo daaxooragul. ah ñoom ñoo bañ. waaw ñoo bañ waaye man. Bombardier uh-huh. gis nañ ko fi te nee na la bëgg a bëri. non nañ wax si leneen. mais tontu. non non ma doon si loolu. moom ñëw na ci laam ji ci na yaa ko fi a ñëw. man sama booy ma tax a ñëw. waaw mais moom nee na yaa ko tax a ñëw ci làmb. man sama booy ma tax a ñëw. kon du ba rek moom.